noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttalante dañ koy tënk ci xew-xew jamono bi nga xam ne mooy mbas mi gane ci àdduna bi ba wal ba agsi ci réew mi ñu nekk liñ ciy fàttalante nag mooy ñu xam ne digle ak tere ak laabirente ci pas-pasu ki gëm yàlla lay bokk bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk wal asri inna al insaana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bilsabr su ko defee ki nga xam ne moo sañ digle mu xam ne digle gàllu na ci aw loosam te du ko wàcc lii digle di am solo lépp nag ak tere mu ngi gën a amee solo ci ki ñuy digal mu dégg kon day mel ne képp koo jox nopp mu di la digal di la tere am na sañ-sañ ci sa jëmm liñ ci bëgg a waxtaan nag mooy wëree yi nga xam ne mooy mbas mi daj àdduna bi kap te ñëw ci suñu suñum réew dañuy jëkk xam ne képp koo xam ne bu ab noon bàyyi woon ci meneen réew bëgg a nangu réew mi ci suñuy yoxo ku ne réew mi war na laa jaral kooko moom jamono buy jël réew mi it yow nga bañ koo fekk na jaar ci sa kaw jàll noonu la ñuy gëmee am réew la ca tolliku it mooy <clears throat> képp koo xam ne yaa ngi yëg ci réew mi ne réew mi ñu nekk su doon lakkit amoo foo yóbbu sa bagage say maam ak i maamaat yépp fi lañu leen denc te ñaan nga yàlla foo mën a bàyyi ko boo faatoo ñu indi la fi am na lu la war ci réew mi ñaar nag ñoo séq ñi dëkk ci réew mi ñaar ñu ñu leen séq kenn ku ci nekk ñun ñoo leen jox ab sañ-sañ ci suñ jëmm su dee kilifa gi nga xam ne mooy ki ñuy jiite ci diine ñoo ko jox ab sañ ci suñ bopp kooko fu mu joxañ dañ faa war a jëm waaye am na ñeneen ñu jox ay sañ-sañ ci suñ bopp it ña ca gën a ràññiku bokk na ci ñi nga xam ne seen liggéey mooy ku wéré di sam xel daj leen suñuy a nga ca suñuy a nga ca rakk a nga ca ak i mag ñooñu nag bokk yi mënu si leen a doyloo ci saw yaram soo wéradee boo ci demut it ñu yabal la ca benn nga dem wala nga bañ a dem nañ xam ne ñooñu mbas mi ñuy wax ñoo gën a taxaw ci kanam mbas moomu nga xam ne ñoom lañ nar mooy balaa agsi si ñun jaar si ñoom ndax ñoo ciy jëkk ku kum dal ñoo fay jëkk su ko defee bëgg sëm réew bu ko nit talee daa fekk mu am ak wér liggéeyal sam réew su ko daa fekk mu am ak wér sekkantumaak jaamu yàlla gi nga xam ne fu waay jëm dafay ànd ak moom su ñu nee ak wér daa am ku xam kum dal muy nit rek ak fu mën a dëkk na jàpp ne mbokkam la dal waaye su xamee kum dal nag kooka xam ko na xam ne boppam la dal ci jëmi boppam ci la dal te loolu yaatu na ci réew mi loolu su ko defee nag koo xam ne su nit demee ba ne laaj moom la ñuy woo bokk yi kooka boo ko wóoloo ci ay jëfam mënu ko wedd ci ay waxam wëroo ko mën a wedd ci ay waxam sëñ bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi yàlla na fi gën a yàgg ba mbir mi amee ci réew mi ñu di ko wax waxee daf caa jëf waxuñ daf caa wax naan nañ ko gëm wala buñ ko gëm waaye lam nam jëfe wane na ni moom ku nangu la nangu na li wéré digg am na ndax dégg na nit mu dal mu jàppe leen ay bokk ay bokkam rawati nag bañ xamee kum dal kooka xam leen su ko defee euh, gëm yàlla dëgg dëgg dëgg du toog rek di xaar yàlla di tàllal yàlla war caa teg yonent bi sallallahu alayhi nit ñëw na ci peggam di ko ziyaar teg gëléemam noonu rek da doon romb yi dem rek gëléem nga ak lëm sëf lépp taxaw ne yonent bi ne ko ku moom gëléem gay mu ne ko maa ko moom mu ne ko danga ko dut yeew mu ne ko bàyyee naa ko yàlla ko yonentam mu ne ko demal yeew ko ba mu dëgër nga bàyyee ko yàlla ko yonentam loolu mooy gëm yàlla ci ay sabab ku gëm ne yàlla war naa mën a jëflanteeg moom mu tàllal mu teg ca na xoolaat pas-pasam ndax mi ngi tagg ci alxuraan bu du tagg it di melal ñi gëm dëgg-dëgg ñooy ñan mooy allazina yuminuuna bil xayb nga xam ne amuk yàlla nga wérante ko waaye yeneen yi yàlla sàkkit wérante wuñ ne yàllaa leen sàkk te mooy wér ak wérati kon bokk yi bokk na ci nangu dogalub yàlla ak gëm ko topp ndigal ci ki nga war a topp ay ndigalam bu bu diglee mooy ki nga xam ne da nga koo bàyyee sa pas-pas lu la ci lënt nga dem ne ko nu ma ca war a def te lu mu lay wax doy la noonu it la nit di bàyyee nit ni moom ak ku yaramam kooka mën naa gis ci moom foo xam ne ndeyam musu koo gis bàyyam musu koo gis su ko ne summi sa mbubb mu summi su ko ne sëqatal mu sëqat bu ko nee xaddamikul mu xaddamiku kon boog bokk yi nañ xam ne ñooñu suñuy doom lañ li nit di bokk ak nit lépp dañu ko bokk ak ñoom te ñoom lu mën a xew ñoo fay jëkk ñooñu nag jar nañoo sagal jar nañoo sagal te xam ne maara dem si wala ayaadu billah la samahallah su leen tëralee ñoom ñëpp kuy woote fu muy jëm mat nañoo sagal ci gëm leen la ñuy wax tamit ay sabab yuñ ne ku ko def yàlla mën na ko ca musal lu yomb la lislaam santaane woon na ko bu yàgg yonent bi jàngale woon ko ba ca jiitu mooy raxas say yoxo ñetti waxtu yu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag ku fanaan ci néegam moom kenn kepp fanaanut ak kenn bu xëyee bala moo def loxoom ci gémmiñam na raxas ay yoxoom ba mu set ndax xamut fa loxoom fanaan xamut lu cay fanaan xamut fu mu fanaan na raxas ay yoxoom ba mu set wicc laata muy def dara moo ne jàpp mi ñuy def raxas ay yoxoom ba mu set desu ko limaale ci farata yi waaye waajtaay la ngir jëm ci farata yi faqih bi nga xam ne daf ko doon was di melal njàpp lu mu doon daf ne ginnaaw ndox koy def moo xam ne amutu xet wërta xeeñ dara wërta mel nenn wërta euh, wërta mel nenn wërta amuk ak cafka mu ne moo tax day jëkk yoxo yi ba ci tikku jara yi xam naa léegi mooy takk montar takku montar yi loola day xool ba xam ndox mi am na melokaanam déet am na couleur wala déet su ko defee mu galax ba xam ndox mi saf na dara wala déet soo ko jëm nag jaar ci bakkan yi saraxandiku féeru xam xeeñ na dara wala déet soo ko dem ca farata ak muy sël kon loolu jullit bi mi ngi koy def waaye na ko gën a jëmale kanam ginnaaw dañ ne boo koy jëmalee kanam yow mi ko doon def dem ak dem mën ngaa mucc fekkoon na la ca waaye su fekkee it mooy yiñ lim yépp kuy tisli lislaam daa jàngale woon kuy tisli na du mooyu bañ a yóbbu lor yi ci kanam waaye lislaam jàngale woon ne kuy saqatit noona waaye kuy ñandu it noona kon bokk bokk yarab lislaam lañ delloo si waat gannaaw nit ñi nanguwuñ ko na jëfe am na lu leen taxaw loo xam ne bu ñu ko jëfut mu jël leen yóbbu nañ dellu si wat ci njàngaleem lislaam mi rawati nag lu lépp lu ci dëppoo ak lu lislaam jàngale woon démb bërki démb dara jafewu ci euh, bari na yu àndal yoo xam ne ku ko topp yàllaay musle waaye mën naa jaag sabab yu mucc kon boog nañu gën a bëgg suñum réew gën koo gëm nañ koy gëmee nag mooy ña nga dénk sa bopp ci wet ci wàllu pas-pas suñu la waxee loo xam ne dara génnu ci pas-pasu bu lislaam ak njàngaleem sharia al islamiyya njàngaleem yonent bi sallallahu sa wa sallam mu doy la saa soo demee nag ba raw ka nga xam ne moom nga toppoon ci ginnaawam su boobaa yaa ko raw daa war a wàññi ko topp ci yow dina laaj waaye ki nga xam ne it bu ak wéré di amee it am na kàddu ci yow bu leen a summikul nga summikul te ku la ko wax ci mbedd mi ba watuut jàppante mën naa am kon nañu leen jox cër bi te xam ne wéradi googu xam nit ñu bari xam nañ ñoom dal bañ ci xamagul kenn suñuy mbokk lañu woon ndax ay doomu aadama lañ li ñun te kenn wërte yéene mbokkum doomu aadamaam ab safaan sakkantuma safaan boo xam ne mën na koo jëmale ci ñu di ko yóbbu di ko denc waaye koo xam nag nu mu tudd sa bopp léegi donte ñu bari liñ gëm mooy lépp lu doxul ba agsi fa ñoom duñ ko jàppe seen mbirum bopp nañ xam ne musiba warut a nit ki ba mu jàpp ne du ca bokk waaye nañ ñaan yàlla ñaan yañ doon def nañ ko wéyal te jaar ci sabab yi yi ci tax mucc nag yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp ñi nga xam ne dal na leen ba noppi yàlla na leen suñu borom saafara ak fu ñu mën a nekk ñim dalagut it yàlla moom leen dal digleek tere nag li ko tax a am solo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon su fekkee ñi war a digle digleetuñ buñ ñaane yàlla day tépp buñ ñaane yàlla day bañ du leen wuyu waaye ñi digle suñ dee digle te ñi ñu koy digal nanguwuñ koo déglu it safaan ba day walbatikuwaat kon yàlla na yàlla dimbali ba ku ñu war a digal rek bu ñu diglee ñu mën ko topp